budget bi doy na pour ñu def liggéey bi donte que nag euh, daañu koy continuer di ko yokk parce que li ñu war a wax mooy 2012 bi ñuy ñëw fii ci pouvoir bi euh, gisoon nañu ne budget armée euh, budget bu xawoon na yem la de trop waaw tey 10 ans après budget boobu dañ ko multiplier par trois fois maanaam budget bi ñu fekkoon cent millions cent milliards budget boobu tey mu ngi ci plus de trois cent milliards de francs CFA yokkute bu am solo la c'est presque deux cent cinquante de notre budget des forces de défense et de sécurité beneen bi mooy effectif bi ñu fekkoon fii tey bu ñu koy xayma soixante pour cent yokku na si effectif bi loolu aussi dafay wane ñaar benn bi mooy euh, politique bi ñuy def mooy politique de défense et de sécurité bi pour menaces si am si àddina bi yëpp rawatina nag yi wër sunu sunu région bi ñu mun ko contenir mun a xeex ak ñoom. président de la république ak gouvernement am ñu ngi ciy taxaw tey booy gis infrastructure militaire yi yokku nañu maillage sécuritaire bi fu amuloon gendarmerie mu ngi am gendarmerie camp militaire yi ñu ngi yokk base navale yi ñu ngi yokk base aérienne yi ñu ngi yokk loolu mooy li nga xam ne en infrastructure euh, militaire ñu ngi def suñu kéem kattan pour loolu taxaw ressources humaines yi ñu ngi yokk formation bi mu ngi yokk militaire yi ñu ngi gën a mën a taxaw ak gendarmerie pour mën a jàkkoonte ak seen liggéey équipement yi ñu ngi yokk am na ay moment euh, armée bi dàll sax yu ñu sol bu baax doon ñu ko woon am léegi def naa équipement de protection équipement personnel lu bare bare bare yokk nañu si li si des nag mooy euh, armée du na rek li ñu jox doy na ñu tëdd di nelaw dañuy continuer aussi di liggéey pour que politique bi nga xam ne moom la ñu am muy politique wu sécurité ci Sénégal ñëpp naw ñu ci loolu loolu ñu gën ko renforcer loolu nag euh, député yi xam nañu ko moom moo tax tey ñu ñëw voté à l'unanimité budget des forces armées loolu ñu ngi leen ciy sant leen gërëm parce que forces armées mooy li nga xam ne su amul si réew dara mënul am sécurité ak jàmm suñu amul si réew développement mënul am parce que sécurité ak jàmm moom mooy li nga xam ne moom mooy lal développement. waaw loolu li ma siy wax d' abord mooy euh, xam naa temps bi may ñu ñu wane ci condition militaire li ci président la République def ak gouvernement pour yokk salaire yi yokk pension yi yokk aussi indemnité yi nga xam ne dafa am ba ñu andi benn indemnité mixte. ak aussi benn allocation spéciale boo xam ne président ci coobareem ak yërmande moom moo décidé ne daf koy jox les invalides loolu mu ngi toll woon ci cinq milliards huit cent euh, am na un milliard huit cent yu ñu mobilisé mu des euh, quatre milliards quatre milliards yooyu ministre des finances jël na engagement ne dina ko mobiliser incha allah avant euh, le 10 décembre pour que ñu mën ko jox invalides yi ñu xam ne rek lépp lu ñu diggante ak ñoom daañu ko def parce que wax naa léegi invalide ak ancien combattant moom mooy trait d'union entre l'armée et les citoyens et la population donc ñooñu aussi vitrine la ñooñu patrimoine la ñu te bu soobee yàlla lépp lu ñu war pour jàppale leen dinañ ko def.